rus na nee na xaritam jëm ci moom la tax mu fasal ko xarit. dëgg la mu ne ko Ibrahima xaritam. wallaahi kon suñu la waxee ni dina dem ba du ñemee yow Seydi Ahmed waaye ñu ko foogee nag ñu ñu ragal yàlla bis boobu ragal wax ak moom bay daw nee na demewul noonu mu ni dafa fekk nag lu mu jiitu seen kilifa comme seen kilifa wax comme kilifa nga wax ko yonent Moussa wax mu rejeté ñu dem ci Isa ibnu Mariam wax mu rejeté ba ñu dem ci Muhammad bu ñu dem ci Muhammad mu doxal leeram ak kawar muy rafet yi ak sikki moom ba nga xam ne benn ndax mosuma gis si li mu sàkk te benn kawar bu laal sama loolu la ñu def ci Muhammad te kawar boo gis lumière loolu yàlla ci moo wax mu ni comme ñëpp jaaxle nañu comme dana wax di dox di dox di dox ba ca suuf sa ay sa suuf sa leen waaw siège borom bee ngi rayon lumière bee ngi euh, nii di suuf si mu bëgg teg ñaari loxo muy teg yëpp a si yéene si wut te moment boobu suuf si ni ko yàlla xam na bu dégg billahi yooyu bi ca instant bu mu ko tàggoo mooy jël sama njëriñ bi la ko teg mais ki ma tiim di sama borom moo tax ma ni moom lay sujjóot pour wane sama suuf bi yàlla yàlla dégg seen waxtaan ba ñu ko ñëpp ñoo xam ne loolu suuf wax am na raison kon bul sujjóot si jëm ndax suuf taxul ma maa xool wax ma ci sa laaj bu teewee loo bëgg ñu def. yéen a ngi ko sama xel rek laa bëgg ñu sauver. yàlla ni ko booy wul arrêté du ma arrêté. yàlla ni ko booy wul doy du ma arrêté. boobu nag ngay gis ñett bokk ñëpp te li ñuy génn def sax ñett bokk ñëpp. ñooy génn def sàpp ñu ne yii mooy sàppi imaam yi bokkoon ca xeet yii mooy sàppi noddukat yi yii mooy sàppi tàggkat yu yonent bi yii mooy sàppi ña nga xam ne sopp ñu ku dul yonent bi borom salaatu am nabi di lim di lim di lim di lim ba sàppi di jeex waaye li ma seet ci jaay sëriñ wax moo tax ma gëm ni sàppe boobu yokkul boobu Cheikh nee na gis nga sàkk yooyu yëpp yore ñu wax ne yaay ko mu ni ko waaw mu ni mën naa nii te fu ma toog mu ni demal xool ndax benn naa fekk nekk ci nee na sàkk ba lu muy bari bari loo ci gis mukk naa koo ci gis rek nee na yëg-yëgam ak yitteem ci yore bi bi muy dund benn la dëgg la kon nga xam ne toog rek ni eh, sàkk ba dëgg ñëw liggéey la ngay liggéey la ngay liggéey mooy ci salaatu ala nabi moo la ciy boole. ndeysaan moo la ciy boole. ñu ngi waaw kon nitu yàlla yi nag ñoom comme imam yi lañu wax ñoom ñu ko jaar nitu yàlla yi de yàlla nag ñu ne la zina amanu wa amilu saalihaati kaanat lahum jannaati firdawsi nuzula ñoom ñu ngi seen bër ñi survolé sàkk yi ànd loolu di dox ñoom ñu ngi leen survolé gis nga ay yëngu dox nga jiw leen ma ngi ko def yàlla yi waaye ma ne ko kenn laaj nitu yàlla yi ñaata ñaan la laaj ko benn bii ak dara ma ne la boo seetee man ko buruus buy dara bëgg ko soo xoolee amal seen li mbooloo moom ku mu raw mbooloo la mën a xam ni loolu mbooloo moom ku mu raw mbooloo raw na la boo xam ni doon ko am foo koy jàpp te nit yi daal lii foofu la ñu bokk ah. processus de organisation ah. processus de sant ki ñun am nañu honnêteté am nañu honnêteté mystique et spirituelle bu tax bu ñu gisoon keneen di ko bu ñu ñëwee di ñëw. dëgg la dëgg la. suñu dëgg tàggu la. dëgg la. parce que suñu mission moo tax. dëgg la. suñu mission ci dëgg la def dëgg la ñu toog am nañu honnêteté mystique et spirituelle bu ñu gisoon keneen di mbooloo nit yàlla yi ca barsa mbooloo nit yàlla yi di jóg àjjana Cheikh Tidiane Chérif